muy mi war ngaa mën a ngemb liggéey ñëw bëreeg moom. waaw waaw ñu ngay waaj a soufflé beneen demi final ba. dox ci diggante kan ak kan. ndeysaan Simon bu ñoo joor teewal Kédougou ak ki nga xam mooy général Malika teewal Fatick ndeysaan demi final 120 kilos yi première demi final baa ngi noonu san waaye beneen plateau bi dinañ ci am beneen demi final poids a astafurla 100 kilos muy diggante Boy Faye ay waay man lu ma dal si juum bi diggante ki a xam ne moo di Modou ordinateur. ak Abdoulaye Mbodj di ki nga xam mooy Seyer Ndama. ndeysaan waaw Simon am na benn avertissement. am na benn avertissement am na benn avertissement diggante moom ak général Malika. ñu ngi ci demi-finale poids lourd. plus de 120 kilos. Simon ak général Malika Simon moo leen woon ginnaaw. ngembo lu ñuul li ak général Malika ndeysaan waaw waaw. ndeysaan. ngi noonu ñoom ñaar. général daw na ko. ndeysaan. ndeysaan. Simon ak Ibrahima ak général Malika ñoom ñaar ñu ngi ci compétition bi. ndeysaan Simon moo ngemboo ngemb ñuul li ceinture bleu. général Malika ngemb lu weex li ceinture rouge général jëli na ko sol na sol na da koy biij yëg na boppam ndaysaan da koy biij da koy biij moom général daan na ko mooy ndaanaan général mooy ndaanaan da koy yóbbu góos ba mu dem muy ndi ko droite ndaysaan général dem na final dem na par individuel dem na final moom général Malika ndaysaan la waxoon def na ko ndaysaan may ko na damaa war a bëre waa ñëw di ma soutenir Malika yëmbal benn baraak Kër Massar buun waa caara yi gaa yëpp dañoo ñëw taxu ba dëgër di ma dooleel ne woon naa la tey mooy làmb ji yàlla nañ suñu borom suturaal dafa am lu ma jaaxal uh-huh. mooy général Malika démb boo fa ñëw ci compétition par équipe bi fi mu teg ci ak fi mu ko teg dafa ute lan la tegtal la wala lan. waaw lépp tegtal la rek làmb moom saa booy chaque jour ñu lay tegtal te lu la lay tegtal rek loolu ngay def. waaw démb. ci lan nga fanaan parce que gis nañ yeneen jimikaay yu bees yoo xamante ni gisuñu ko woon ci général. fanaanuñ ci dara waajal comme ni ñu doon waajalee rek xam nga bisu am du bisu ñàkk bisu ñàkk tamit du bisu am suñ borom mooy dogal ci côté bépp mën naa ñëw fii du ma indi benn budeel jël làmb. mun naa ñëw indi ay butéel te du ma jël dara ñun liñ jiital ci làmb mooy entraîné ba am doole suñuy waajur ñaanal ñu ñu ñëw loolu lañ gëm waaw le reste yëpp day mottali la ñu ngi lay gis ci lutte traditionnelle bi ngay ñëw drapeau chef de l'état ñu gis ci général Malika te yaa ngi waajal combat bu rëy sa diggante ak fils de Balla ci wàllu bëre door le treize li ma bëgg mooy contact ba bañ na suba compétir bañ na suba la combat bi ma dem bëre ko pour wax la ni ñun chaque jour dañuy dund làmb combat arène beeg mbapat bi lañ yemale léegi pour man sax arène bi pour sumay supporters yi nga xam ne ñoo may bëggee ma dëkk koñ ba ñuy may tiitaroo ñoom la pour combat arène bi mais làmb dafa nekk si ñun semaine bi ma war a bëre bi semaine bi ma war a bëre avant muy ñëw buñ ne làmb am na ci semaine boobu damay bëri ba pare soog a dem bëri sama combat dañoo jàpp ni kon da ngay sous-estimer sa adversaire wala da nga koy man mbër la moom mbër la mu ngi waajal nam ko waree man it suma bopp man lii waajalee compétir am déet waaw noonu la demee final bi suba di ñaan yàlla suñu borom suturaal ma defal ma ko comme daaw ni ma ko jëlee woon ma jëlaat ko waaw ndax ñun moom ay jaam yu xeebu lañ te duñ jug di sabablu sabablu nag weesuwul tàllal say loxo suñu borom ñaan ko li nga war a def yow nga def ko yàlla nag moo yor ndam suñu mayee dañ koy sant bu ñu xëyee dañ koy sant ñu ngi naan yàlla ñu yàlla may ndam bonne chance général merci waaw